direct bi nga koy jël mu dëkk ok waaw ñu ngi nii euh, wàcc ci manifestation bi nga xam ne moom la woote woon euh, sànq ci ngoon ba tey diis mënul weesu lii euh, mais ñu ngi saluer détermination wu jeunes yi nga xam ne génn nañu pour exercer seen droit constitutionnel manifester droit constitutionnel la kooku Macky Sall mënu ci dara dañu ne ci campagne électorale campagne électorale dafa am dafa am dafa am dafa am solo fii ci réew mi décret bi mu jël du décret bu baax tey dañu taxaw pour dem campagne manifester parce que kenn mënu ci reporter les élections kon ñu ngi aussi woo tous les démocrates les jeunes les femmes les personnes âgées ñu ñoo manifester seen mécontentement c'est crier au scandale contre vraiment Euh, li mu tuddee li mu bëgg a tuddee report des élections kon élection dafa war am ci 25 février sénégalais yi dañu war a wax ko Macky parce que première fois ci histoire du Sénégal euh, ñu fi ñu fi reporter ay élections c'est du jamais vu du jamais vu euh, gis ngeen ñu jeunesse bi taxawee gis ngeen ko parti voilà ñu leen di woo ñoom tamit parce que looloo war a am taxaw fii défendre démocratie bi looloo fi war am leneen waru fee am yi dañ ko war a tenir le 25 février pas à une autre date. On est en pleine campagne électorale. Voilà comment on fait campagne, sous les lacrymogènes, à force de l'ordre yi quadrillé. C'est une agression boo xam ne ñun ñoo ko war a fajal suñu bopp nous les citoyens nous ñu mobiliser wu ñu respecter le calendrier républicain loolu mooy li nga xam ne tey euh, mooy appel bi ñuy lancé à tous les sénégalais à commencé nañu fi commencé nañu fi arrêté ay jeunes. gis nañu sànq ba tey ñu ngi rafetlu ñoom moom bu baax mais seen droit la ñuy la ñuy la ñuy exercer voilà fii bi pour cent de la population ay jeunes la ñu. yi amuñ lu ñuy ragal parce que ñun ñi seen yaay yi ñu ngi nii ci benn bi ci ñun ñii seen day donc il faut que population bi mais vraiment jël seen i responsabilité pour que ñu arrêté Macky parce que Macky Sall moomul réew mi nag finalement moomuñu. dañu war a dem à a toog ba ñu ne y' a dans 4 5 heures ñu arrêté la campagne ñuy wax ak aussi les forces de l'ordre les forces de l'ordre ci ñun ngeen bokk ci ñun ngeen bokk di ngeen force de l'ordre du président Macky Sall da ngeen war a encadrer manifestants yi aar leen ñu exercer seen i droit vraiment yi nga xam ne moom la leen force ñu ngi leen di gërëm di leen saxo voilà ça va. suivez-le suivez-le suivez-le. non non su ma oto dama Madame la Présidente Aminata Touré est comme ça.